jardin bi non soxla ma koy bloqué waaye na tontu jardin gis nga làpp tey bàyyil sëñ mu taxaa bàyyil sëriñ bi man déggoo moo fi wax dara sëñ mu taxaa kër yaa ma ci comme ko diir waxee mais seen mentalité la làpp tey moo tax kat doo leen ko am sëriñ lan mooy sëriñ sëriñ bu dul wax dëgg sëriñ bu dul atte dëgg c'est zéro sëriñ Touba boo gisee mu am li mu am dafa sacrifié pour Sénégal li ñuy def Sonko lañ ko def dañ kaa jël yëpp lu raw Sonko sax parce que moom dañ kaa jël génne ko réew mi gisatul njabootam pendant juróom-ñaari at muy bind talul talul àdduna même dara Sëriñ Tuubaa même bu dul dara tar àdduna cent kooku tal na toog di gëstu di bind di tagg yàlla di ko tagg di tagg yonent amuloon jot pour badaxal mbataan amul jot pour yére bu baax Cheikh Ibra amuloon jot pour yére bu baax ah, loolu la ñu topp moo tax sëñ Touba am li mu am waaye nag ñi ñi ñu wuutu sëñ Touba ndar nañu yàqal sëñ Touba illaahi wallaahi taala dëkk bi mu tàkkee jëppee gis nga dëkk bi bu tàkkee jëppee kenn dootul dem màggal Touba parce que dëkk bu am guerre civile kenn dootul tal màggal Touba dëkk boo xam ne dañuy toog nit ñi di wër lu ñuy lekk ndox amatul courant coupé guerre civile ab terroriste yu dugg looloo dara am Sénégal buñ jógee di leen gëmloo àjjana boo deewee yàlla da lay dugal ci benn jardin parce que àjjal aljanaat mooy jardin jardin bi loo bëgg lekk-lekk dangay lekk rek dangay naan champagne nee nañ champagne am na fa bu leen naan sàngara fii waaye boo boo boo deewee da ngay gis champagne fële dama ne ibu yalla, xalaatal bu baax li ngay wax bul wax ni sëriñ ñi seen yoon nekku ci ñoo xam nga ne waxoo dëgg bu topp sa gëm-gëm ba nga sacrifier Sénégal bu topp benn famille religieuse am ay privilège ñu leen di sukkal di leen raamul di leen leen su di leen ay milliards te ko ñu ñu ñu ñu ñu sëriñ bu ak dekk ak neex dañ bu boobaa dañuy dem di magal li sëñ Tuubaa wax ma wax sëñ Muntaxa ko li wax bu ko bu ko appliqué dama len amal bor ñu att dekk wax Macky Sall dekk nek do fi defé 3e mandat do taal suñu rew mais ñun ñu tok di xaar ay France di intervenir alors que am na benn sëriñ boo bu ñu wax mais ñom bu ñu waxul seen bop lañ ko def billahi wallahi taala serigne bu ñu intervenir seen bop lañ ko def kii na xeex sëriñ yi ma gis léegi gëmatuñu mais gëmuñu ajjana gis nga ajjana boo ko gëmee da def ni sëriñ Tuubaa doo taal àddina doo àddina da toog di bind rek ay poème ay poème tagg yàlla di wax nit ñi lii def leen baax bu leen wo bu leen ñaaloo bu leen def lii bu leen def laa mais di leen jiig boo deewee benn jardin da nekk di lekk rek di naan nekk ci bitéel yi nekk ci

Sonko li tax mu garaaw mooy système bi lay nar a détruire gis nga Macky Sall li tax mu baax ci benn côté day tax sénégalais yeewu am beneen façon vision parce que sénégalais é dafa sentimental waaye dañoo gis président buy rey président buy tëjaate président bu amul benn sentiment président boo xam ne li ñuy wax machiavélisme comme turam moom lay appliqué la mooy machiavélisme mooy pragmatisme réalisme lii laa bëgg lii laay def y a pas le bien y a pas le mal ajjana merci ajjana jàmm la sa jàmm boo xam ne day nekk ci yow merci ajjana du lekk du naan nekk ci bitéel bi nekk ci caggat yi ba ilaa yow mi lool loolu lool ngeen di ñaan yàlla yow boo deewee doo ñaan yàlla mu may la ay pouvoir

loolu day neex day neex a dégg di daanu di yuux yi ngeen baal bu ma kenn kër yaa ma tax ak ak ak la vue la vue ngay gis lu rafet gis ay uru ay ni ñu yor ay forme yu nice ah yaram yu baax taat yu baax ku am 16 ku am 18 ans génn euh, saa waay ne daf porte plainte de ak ñëw ci gaaw ay ay ay ay ay Amérique laa nekk nag nekkuma Sénégal ma kenn ku ma yóbbu kër yàlla ci tax dama ne da ngeen di dee doo la ko gis billahi wallahi taala àjjana mi ngeen ko décliné amul man maa leen ko wax safara amul foog ngeen yeewu yàlla du lakk kenn fii mooy àjjana fii mooy safara gis nga ku dof dof lu ba dunduloo fii lu neex perte du mën a sax perte nga ma ne perte nga ndax adduna bi moom amul sax buñ fi buñ fi dund buñ fi doon ndax day day lu mu neex neex da ngay dee lu mu naq naqari da ngay dee ñun yàlla foofu la ñu baaxee adduna bi du gàtt Macky Sall ñoom dañoo réer parce que ñoom li ñuy wër du parce que Macky bu gagné bu nekk président mais et après noot nit ñi rey Sonko tëj Sonko nekkat président ba 2035 mais bés dina ñëw Macky Sall day tële comme Gaston Mbengue Gaston Mbengue tal ko dara. ngi ci hôpital fenn ñu naan dafa am cancer ñu bi jarul xëccoo du dara gis nga paradis bi comme ni ko euh, Néfati di waxee jàmm paix intérieure képp koo gis sa àjjana mi ngi ci yow même boo toogee amuloo dara am na nu muy demee nga dund àjjana Sénégal da ngay gis ay xale yoo xam ne lekk ñu naanuñu mais ataaya bu ko naanee bu ñu toogee di teg seen ataaya di wax ci Modou Lo Balla Gaye loolu mooy seen àjjana wala ñu am benn xale bu ndaw bu leen gëm loolu mooy seen atte àjjana wala des fois de temps en temps ñu déglu xasaay loolu mooy seen attaque àjjana chrétiens yi dem église et mais àjjana pour nga dund ko il faut nga am le minimum il faut nga lekk na ku xiif ba munoo safara ngay dund ku feebar safara ngay dund adduna bi du dara adduna bi du tous c' est un monde est un violent c' de euh, d'imperfection adduna bi boo ko xoolee xam ne adduna bi dara yomb xool leen feebar ay microbe dugg sa yaram ah di ko lekk nga gaana microbe dugg sa yaram sonnal la nga am cancer xoolal soj xoolal nga jékki-jékki doon gis gisatoo jékki-jékki sa tànk nga accident sa tànk bi takk façon façon violence nit ñi di reyante di di rey di jël ay nit di leen suul te deewuñu ah façon torture affaire góor jigéen adduna bii ku la ne ajjana la waxul dëgg mais de l'autre côté ajjana la parce que tamit des fois jigéen bu rafet romb xool la romb la nga xool ko rek am loo yëg sa yaram wala bu dee jigéen bànneexu sëy da nga koy da koy xam nee naa leen monde bi c'est un monde intermédiaire lan moo tax yàlla bind ñu di ñu mbugal parce que li Macky Sall di ñuy def mbugal la ndax réew dëkk réew lëmb nga téye ko sa loxo def lu la neex di tëj nit ñi ñi war a ñëw vacances sax mënut ñëw vacances kon ma man bu duloon Macky Sall dimanche maa ngi Sénégal billaahi wallaahi taalaa def fa presque deux mois bu duloon Macky te pourtant sama jabar mi ngi faral Macky mi ngi doon xootal Macky xool leen paradoxe boobu neferti sax neferti neferti xool paradoxe boobu sama jabar bi nga xam ne Macky Sall la la voté tey Macky moo ko xañ jëkkëram ñëw te pourtant moom ba ba léegi xam naa ne am na lu tuuti loo xam ne gëm na Macky Sall c'est ça le paradoxe de la bu duloon Macky maa ngi Sénégal mais est-ce que damaa mere Macky Sall ci loolu non non ma ko parce que xelam moo toll foofu xelam moo toll ne moom dafa war a noot réew boo xam ne moo ko jox lépp foofu la juddoo ñu nekk ay nit ñu comme moom ah ak nit ñu lu mu dund li ñu tubaab bi sonnale ku la ne woon beneen nit ku ñëw dina ñëw dina dina di ñu sonnal doo ko gëm Serigne Touba bi ngeen di di di di di di bàkkoo ñu koy bàkkoo ah Serigne Touba tubaab yi la xeex tey Macky Sall ñëw ànd ak tubaab bi jënd ay gannaay ci tubaab bi di tëj nit ñi di rey nit ñi xool da nga xool loolu yëpp. da ngeen di xool mais man est ce que damaa mere Macky Sall merewuma ko parce que c'est la yàlla moo ñu bind soo Sonko wax na ko dem Sonko dafa mel daf may seetaan li may wax yëpp lay wax Sonko nee ne yàlla moo ñu bind ñun ñëpp ba pare bindaale Iblis non affaire bi du ay risque yéen ñëpp vous n'avez rien jël risque ñëw Sénégal affaire bi du risque man ñëw su ma ñëwul Sénégal du question damaa ragal billahi wallahi mais dama xam ne bu ma ñëwee lan lay lan indi ci combat bi au contraire day yàq combat bi ndax man am naa message boo xam ne dama ko war a passé ñaanal yàlla ba mu jël vacance incha allah léegi ma jël vacance yéen gisagu leen dara su ma jëlee vacance ba dem New York incha allah di def ay live deux heures trois heures de temps combat bi jeexagul de combat bi day doog a doon mais dama bëgg ngeen comprendre ne affaire bi bu leen découragé trop. su ma demee lan lay changé du changé dara lu dul ma sonal sama bopp sama njaboot torox parce que man man sama njaboot ci man la dépend sama doom ci man la dépend ak samay famille ñoo am yaakaar ci man su ma demee Macky Sall jël ma ràpp ci ko bi ma nekk rëbës ah man gëmuma sax dem su ma demee dañ may jàpp déjà je américain ma jàpp mais en plus de ça man dama fi waxul sax lu tax may jàpp comme ni la ko man. aw ma temps wu attaqué Macky Sall dama koy wax dëgg rek dama ne ko faral te Sonko bu dëggalee boppam ba fa muy mujj mooy am ndam. non déglu ma nag ah dama ne ba fa muy mujj waaw ah, léegi gars yi leen may leen ma dix minutes ma Please reserve the use quinze minutes quinze minutes ma conclure ci àjjana bi ba pare aussi pour wax leen tax ma ni Sonko bu dëggalee boppam mooy gagné waaw même avec ça Macky en prison ñëpp lay tëj li tax ma ne Sénégalais lan moo tax mu tardé àjjana moo ko tardé parce que jeunes yi ñu góor ñu yàq ñu lekk ñu naan léegi lañ leen wax adduna bi comme réussir leen adduna bi comme adduna bi yéen ay ay kii ngeen ay perte ngeen ko parce que ku toog am vingt ans vingt cinq ans mosoo liggéey amoo diplôme dañ naan la léegi jëmal nga rattrapé wu boo demee àjjana lépp nice mais nag àjjana boobu amul àjjana bi ni ñu ko expliqué ne yàlla day toog rek dugal la ci benn jardin nga nekk ay ay jigéen di bànneexu ba illaa yow mi di jigéen yi sax yéen waxuñu leen loo leen di am yéen waaw ah, yéen moom dafa mel ne vous des objets yéen moom ay objet ngeen waxuñu leen sax la ngeen am góor yi la ñu wax ne dañu am uuri ay na uuri ay na ngeen nekk fa nekk fa di bànneexu mais loolu lan moo ci neex dama leen di laaj loolu lan moo ci neex am na ku ma ne amul éjaculation amul daanu àdduna àjjana amul daanu sexe bu amul daanu de moom neexul sexe sexe moom li tax muy neex mooy éjaculation gaa yi ngeen baal ma kenn yóbbu kër Amady Dia sexe li tax mu neex mooy nga nekk ak si jigéen bi muy fóon di raay naan ah, ah ba affaire bi ne ah nga daanu jigéen bi tam daanu mais nekk ci rek di mais loolu kon kon doo arrêté daanu bu amul kon da ngeen bu wax ne àjjana la nga fay nekk rek di laal ba ilaa yomi boo paree nga jël benn pomme di lekk amul dem toilette. amul dem toilette da ngay lekk rek kon doo arrêté bi dangay ngay lekk rek di dem ñu ne ma Nefertiti di sàngara bi da ngay neen doo doo màndi sàngara ka bi ñu koy wax màndi bi moo tax mu moo màndi bi moo tax ñuy wax ji Nefertiti <laughs> dañuy waxante dëgg di laal te doo loolu neexul daanu sexe koy wax orgasme moo tax le summum moo tax moo tax moo wax sexe nga gis sax preuve man yu genn xana da ngeen yéen kay da ngeen mo wax ne man yu jamaa mo fay am wala man yu or sax mais man yu amul jigen yi bëgg mu gis man yu bi nak parce que jigen tamit bu defee dara euh, waayam bëgg na gis la plénitude <laughs> la plénitude da ngay fess del le summum le summum du plaisir l'orgasme Aliou jigen jigéen ji dafa bëgg gis dafa bëgg gis preuve waaw boo nekkee uur ay ni bi bu la ci nekkalee Aliou nekkal la ci day bëgg gis preuve bëgg na gis maniw bi génn mu ne ah man sama liggéey sotti na waaye nekkal la ci rek ba ilaa may may xanaa eh, ñoom du ñu <laughs> dañ leen di lépp barke rasulaa yéen comme ay xale lañ def sëñ bas toog di leen wax ay affaire ajjana ay paaw karatan naan waaw waaw sëñ Tuubaa dinañ ñoom ajjana bu la leen gis ndayam doo leen ko gis barke rasulaa seen yëfu saay-saay ci uuri ay su meeku ba sax ne yéen yéen yéen yéen yàlla boo leen koy ñaan doo leen koy ñaan ci ay pouvoir am ah doo leen koy ñaan ci man de bu ma dee bu ma yàlla bu boole tey uuri ay ni xam nga la laa bëgg yàlla may ma may ma may defar ay planète ah wala mu may ma may tukki ci jaww ji jóge fii léegi dem dem dem Mars su ma demee Mars xool li fa am dem beneen galaxie walla yàlla may ma pouvoir ma créer sama sama sama sama benn monde xam nga di fa def ay mais yéen da ngeen di ñàkk fayda li gën a li gën a tuuti ci nit moom ngeen di ñaan yàlla lekk naan ak def yëfu saay-saay noonu lañ leen naxee yàlla ëpp na loolu yàlla ëpp na plaisir ñun ñoo am sens ñun ñoo xam lan mooy euh, laal euh, euh, le toucher la vue mais yàlla yàlla amul bët mën nga ne yàlla amul bët yàlla du jëmm.

Maguette Mère Yàlla tey li xool leen suuf si nu mu violent wi mais gars xool leen xool leen Macky Sall nu ñuy nootee dafa metti ci yaram metti ci psychologiquement même Sonko mu ngi naan c'est une bataille psychologique ndax man mii mettiwul sama yaram mais mi metti na ci mu nit dof metti na ci yaramu jomaay ndax ñu ngi leen tëj mais man saa yu ma yeewoo dem Sénégal wala ma dem YouTube gis Cheikh Yérim Seck di wax wax yi muy wax mi ngi may mi may mi ngi may loolu loolu coono la ci man coono la ci man mais nga gis feebar yi ah, loo xam ne sax bu Macky Sall moo ñu ko teg feebar yi guerre yi am guerre yi am euh, euh, euh, par exemple ay Soudan ah, nga dégg nit ñu soxare fii Amérique da ngay jékki-jékki dégg benn nit dugg la ci benn restaurant rek commencé tiire nga gis ay nit ñuy jigéen yu ñuy siif loolu lépp yàlla gis ko ko seetaan nga gis ñoo xam ne du ñu góor jigéen ñu forcé leen ñu nekk ci prison yi ñu forcé leen def leen ay góor jigéen ñii am sida lan moo gën a metti sida yéen xamu leen luy àjjana xamu leen luy safara nga yeewu rek dem ci docteur bi ne man daal docteur dama am benn taab néfertiti l'enfer fii la gis nga safara bi ñuy wax fii la imagine tey mara détaillé nit yow am benn taab dem hôpital gars yi def test ne ko da am sida juróom benn weer moo la dese dund loolu mooy safara safara takk tàkk safara mooy metti nga jékki-jékki am cancer munoo nelaw ah sa biir di daw xool feebar yi du mu bëri ñaata façon feebar moo am ci suuf si am na lu mat un million feebar un million feebar xoolal taab feebar la xoolal euh, socc feebar la xoolal wànnet feebar la gaana feebar la xoolal sida feebar la xoolal euh, euh, tuberculose feebar la xoolal sa tànk tàkk nga la fañ mën nga judd la fañ nga judd gumba tëx lu xool leen feebar yi nu mu bëri souffrance souffrance mooy souffrance mooy safara ñun ci safara lañ nekk mais xam nga yàlla fan la ñu baaxee dañuy dee boo deewee lépp jeex dootoo yëg dara waaye yaakaar ne boo deewee da ngay yeewu nekk ak ay caga waaw eh, ma kenn yóbbu yàmm di tax ma caga caga mooy xale bu jigéen boo xam dafa vierge ba pare nag ñu taamu ci vierge nak ak ñu say say vierge lañ ci taamu loolu mooy adjan àjjana moy plaisir déedéet àjjana du plaisir àjjana c'est l'absence de souffrance àjjana du am la mort c'est la plénitude àjjana du plaisir àjjana moy l'absence de souffrance moy ko tok dara méttiwu la lolou àjjana boo toogee Sonko li tax li muy xeex nii daf ko tal Macky Sall li muy xeex dafa katal Macky Sall tey bu yeewu woon am cancer dootul wax troisième mandat milliards yi dootu ko jëriñ dara àjjana da nga koy àjjana du du du du lu neex àjjana du lu neex àjjana mooy dara daluma aw ma métti loolooy àjjana te boo deewee dañoo yaakaar ne boo deewee dara du la dal loolu nag yàlla loolu la ñu ñun yàlla loolu la ñu baaxee parce que yàlla dafa xam ne lu mu métti métti day jeex waaye bu dul jeex foofu la ñuy foofu nag la war a mere yàlla mais Macky Sall li muy kërti kërti di def nii ñun mën nañ ko dëkku li muy kërti kërti mën nañ ko dëkku parce que xam nañu bés dina ñëw moom day dee tamit dañuy dee mais moom xamul loolu il ne dort plus naa la Sonko daf may dégg xam nga nee naa la Sonko daf may dégg démb ci discours am wax na ko nee naa leen Macky Sall li muy def yëpp bluff la. Vous jouer poker c'est le plus grand joueur de poker du monde Par mon day trèfle roi voilà, wala valet Macky da nga normal mais il heures de temps par jour Macky Sall ko soo ko dafay déglu mooy yee déglu ma de dama me de man de ko agenda Macky Sall kay conclure je may conclure mooy bu dëggalee bopp ba fu muy mujj mooy am ndam mais bu ragalee Macky dina ko rey billahi wallahi taala dina ko doon wax ko le seize da koy jël non non na mais Sonko bu buy dellu ginnaaw di dellu ginnaaw di dellu ginnaaw ba fu muy mujj dina

nee na le 12 ñëw leen ñun ñëpp jugaleen Saint-Louis jugaleen Thiès jugaleen fépp ngeen ñëw mais le 12 boobu est-ce que dina am Macky Sall du koy da koy tere place de l'Obélisque marche boobu est-ce que Macky Sall du ko tere Macky bu ko tere est-ce que Sonko day forcer non non xëy na dañuy waraat këram bu ñu waraatee këram la lay def est-ce que day génn bu génnee est-ce que dañ koy dóor bal est-ce que dañ koy lii est-ce que est-ce que est-ce que il faut que mu xeex li mu wax ne moom shahid dafa joxe bakkanam il faut que mu dëggal li El Malick wax ne ñoom ay chahit lañu ñoom faale wu ñu dee waaye Sénégal ñoom ñooy sondeel sondeel il faut mu takk ba jeex loolu il faut que Sonko dëggal bopp mais nekk fii di layam layam di daw naan fii ak 2024 ah di wax naan damay def ay appel ak tant que mi ngi topp Macky Sall ci agenda dara du ko.

ñoom paa Khalifa Sall ñoo ko daan téye Sonko saa yu paree ne damay xeex ñoom Khalifa ñoo ko daan découragé mais comme léegi Khalifa génn bokkatul Barthélemy bokkatul léegi Sonko xam na fu mu fekk comme Sonko éliminé nañ léegi xam na ne xeex ak ci des le 12 bii la bëgg commencé mais problème bi mooy le 12 est ce que Macky dina permettre marche boobu mu am bu ko permettre lan la Sonko di def bi ba bu mu déglu Khalifa Sall Khalifa ko war a dàq.

waxoon naa la ko ba ma nekk Brooklyn ma ne 2024 ku ko fekkewul fekkewoo dara yàlla na yàlla bu fekkewul 2024 fekkewoo dara man waxoon naa la ko nee naa loolu ne sax nii lay garaale ay manka bu ñu leen ay DJ bal man xalaat moo ne nii lay demee ay booy yoof ngor ñuy dóor ay bal jigéen xale bu jigéen 15 ans muy dee mais lii yëpp gisoon naa yalla yalla fexe ñu fekke ko di ngeen gis loolu musul gis Sénégal day changé ci nii wala nel te dinaa leen wax benn affaire instant yi ñoom ñu ngi fi nekk di jubilé ay ay chef Yérim Seck ay ay ay Mati Trois Pommes ah euh, Mame Niang Mamour Diallo mais ils n'ont rien compris par kër Soulay boy Sénégal yi dañoo sadik boy booy dañoo maar gis nga boy bu ñu génnaatee fii armée bi dina jël nguur gi de. ñu bari dinañu dee saa yi comme ni mu kii waxee Moustapha Diakhaté li mu wax am na Macky dina tëj ñu bari dina rey ñu bari waaye ñoom tamit bu ñu bu ñu dof dof loolu bu fekkee parce que Rasulullah ñoom ko li mu wax dëgg la affaire bi c'est une guerre psychologique maanaam ci xel la nappante la nappante billaay barke Rasulullah li li li saa waay wax nu mu tëddate euh, kan ko wax El Malick ils n'ont rien compris le réveil va le très brutal pour eux waa APR ñoom ñoo ko gën a xam Sonko rek la ñu ragal gars yi dama ne woon dama ne woon mayaat leen ma mayaat leen ma cinq minutes déglu rek la ñu ragal.